machine bii nii machine nu euh, machine nu high blood pressure la moom la ñuy wax tension moom la xale yu yore nii di si di si jàng machine bii nag da ngay dugal sa loxo ba ci biir fàtte da ngay dugal sa loxo oh da nga koy commencé da ngay dugal sa loxo ba ci biir soo dugalee sa loxo ba si biir nii dugalal dugalal bi si biir dugalal soo dugalee sa loxo ba si biir après machine bi dafay bës nag soo bësee si la lay soog a jox sa tension normale léegi léegi di bësal léegi léegi nii nii lay def après ko génne léegi tension am lan la am na ay njublang yu nekk si biir njublang yu nekk si biir nag li ko jàng te wane ko moo nekk nii lii moo war a tax fu ñu toll ñu nit ku ñuul nañu xoolaat suñu bopp parce que ñi ñuy tuddee docteur wala ñi ñu leen di tujoo médecin li si ëpp booy xool xamuñu ne dafa am ay njublang yoo xam ne ne dañ ko njublang ba pare scientifiquement te booy xool lépp dañ ko bind mi ngi nii ñu bind ma koy wan nit ñi ñu ne scientist ñi nga xam ne ñooy def science have known for some time that the rate of hypertension in rural West Africa is, lower than in other places in the world nee ñi nga xam ne yor nañ science xam nañ ne ne nit yi nekk Afrique de l'Ouest comme ñun foofu noonu suñu dëkku senegal ci àddina juróom-ñaar ñun la suñu tension gën a tuuti ci àddina këpp fépp feneen ci àddina lii nag en anglais lañ ko bind parce que ñun jàngaluñu anglais ndax France moo ñu yor mais alhamdulilah rabbil alamin ba mun nañ ñëw ci université yi nekk fii di jàng bu ñëwee dinañ comprendre mais li ñu bind fii nee na science xam na bu yàgg lu yàgg-yàgg ni ne li africain di am ci hypertension ci mbedd wala àllu Afrique yi moo gën a tuuti ci àddina que feneen ci àddina loolu nag euh, njàngat la boo xam ne ñun dañu si war a am lu rëy ndax machine yi ngeen di topp di dem jëli ñu leen di xool leen seen di leen xoolal seen tension yeeg yooyu ñëw di leen wax lu nekk febru len musuma nangou ne ñun dañu febar musuma ko nangou nit ku ñuul mais nak dañu am problème suñu problème moy dañu ragal nit ku weex lepp lu nit ku Wah, wax rek ñun moom la ñu nangu lii mu nekk tableau bo xamni fi la ko indi pour amana bu mo len waxee bu bo len gëmul yeen bo len gëmul xalé yi euh, bo len gëmul xaar bu mu génn xaar bo len gëmul weddi gis daf ci bokul lo tax ñu wane ko ni high blood pressure muy tension ci sa race la wala racisme la racisme muy wone ni ne lo xamni ne da ngay dingat nit ku ñuul pour yëkëti nit ku weex té loolu lañu wara fi ci fii table bi mu am ay njangat njangat yu bëri yo xamni daf koy wone feebar bëri yi nga xamni ne na ngeen ko am ay naxanté la yo xamni dañ leen ci sonal té ñuko ëpp di ko wax ay docteur lañu machine yi ngeen lañu gëna naw ci adina tant que dugaluñ suñ loxo ci machine yi rek ñun pour ñun amu ñun pour ñun wëruñu alors que machine yi liñ ko toggé <laughs> mais dafa am lu bëri loo xam ne ne race daf ciy joué loolu loolu la quoi man nag comme que dama bëgg nekk soldaaru maam Cheikh Rahane Fall waxu maam Cheikh Rahane Fall du fanaan mbedd lii yàlla nga ko gisee seen bët kii di seen mbokku taalibe maam Samba Fall soldaaru maam Cheikh Ibrahima Fall ma ciy dellu ngeen ngeen ni ne science lu ni ne nombre nit yi nga xam ne dañu am hypertension muy tension ci mbeddu Afrique yi moo gën a tuuti lépp ci àddina kon boog sama gars yi wasalaam